ETDR Events vous présente le 14 janvier, fils de Bala Lacrosse, drapeau Ousmane Sakaljen, maire de Sakal, Réunion Tchatouyov, drapeau Ahmadou Bambassar, directeur général de l'artisanat. Deux grandes affiches, une même journée, ETDR Events, le 14 janvier, sponsor officiel, établissement Toubadar Rahmar, Junou Rola, Toubadar Salam Karo, Tampico, Huile Global Textile, Kir Arab Business. mbokk yi ñaari mbër yaa ngi noonu ci diggi géew bi grand combat bi dox ci diggante Zarko bu Grand Yoff Mbooloo ak Diène Kaïré mbokk yi bu Soumbédioune Zarko kenn xamul lu mu diwoo tasante nañu ñoom ñaar ñoom ñaar tasa nañu lu ñu waxante hey Zarko bébé wala boog Diène Zarko nee na ko taxawal fii laa la wax taxawal waay waay bàyyi leen ñu waxante loolu làmb la. lu nuy waxantee nu jaaxal Zarko ngi waxanteeg Diène Zarko da koy jéem a wàññi waaye Diène loolu bëgg a ko ñoo ngay dox di dem Zarko Diène Kaïré Zarko Diène Kaïré Zarko ngi noonu ci diggi géew bi Diéne ngi ci diggi géew bi Zarko am na lu muy kaas ma ngay wax ak Malick Ngom lan lay wax ak moom woo nanu Diéne Zarko am na lu muy dindi am na sengoo ko nu koy takkal moom Zarko waaye jën wala boog Zarko xajam na de Zarko kenn xamu okor la diwoo wala boog ban bu xonk bi waaye loo ci mën a dégg daal mooy Zarko xajam na Zarko lu muy wax moom Malick a ngi wax de Zarko ngi wax ak Malick Ngom waaye est que doo concentré wu sa lamb Zarko Thank you. abi baa ngi laaj ay juge laaj na ñetti juge laaj na Diène ba xam laaj na Zarko ba xam pare nga mais de ladna Zako Zarko ba ladna pare nga laaj zako ngay dem wala bok taxawna zako mo à gauche arbitre Togal. Djien féete na à droite Diène mon ngemboo ngemul vax bi yi journée Ibou Laye production Boki yi décembre la nu nek dimanche 17 décembre Il est 20h31. Zarko à gauche. Diène Kairé à droite. Leewtoo bi soriantoo na. jàppanteegunu ba léegi. Diène aj na garde ba Diène Leewtoo na ba mu neex ko mu dagg ko taxawaat. Zarko mbem na léegi Diène jege ko. Zarko mbem na Diène jege ko. Zarko Diène Kairé. zako dafa bëgg dem wala nu mu bëgg def zako dugal na bobba waye waaye na jonn taxaw di xol jennat nako jennat nako ko ngi koy xol ci biir beut zako sans na pied ba tek na gauche ba mu neexoo mu tek droite jenn sekkatal nako ko dóoranteegunu jàppanteegunu Zarko Diène Kairé Zarko daa mel ni ku bëgg a dem waaye loo ci mën a dégg mooy Diène dafay xeex Zarko changé waat na ba Zarko changé waat na pied ba mu teg Zarko Diène Kairé Zarko même na léegi abi sif la waat na Diène koy accéléré waaye est dëgg la ci moom Zarko Diène Kairé saqatal na ko léegi mel ni ku bëgg accéléré làmb ji Zarko dafa bëgg a jàpp Zarko dafa mel ni xeex bi lay daw Zarko daa mel ni bëggute xeex ak Diène waaye Diène loo ci mën a dégg mooy gauche droite Diène oh. bu ci nekkee du mu ko bëgg waaye Zarko na ngi ne tekk di ko xool di xaar loxoom jóg mu juwaat loo ak moom Zarko Diène Kaïré yàlla bu ci doomu daanu am daje nañ daje nañu daje nañu jàpp nañu daje nañu kenn dooragul rocceeku na jël na tànk ba Diène a ngay bëre Diène ngay bëre loo Zarko am na loxo ci ngemb Zarko jàpp na Zarko déedéet Zarko est li nga def yoon la Zarko Zarko jàpp na rocc loxo ba Zarko nag dafa bëgg a bëyee spectacle waaye Zarko loolu loolu nga def est-ce na Zarko eh jën da koo bëgg de kal na ko jën kal na ko jën Zarko jën Zarko ñu ngay bëre xoolal Zarko nee na ndànk Zarko moo ngi wax cumbukaay li nee leen ndànk li xel mu dala koy def Zarko li muy def xel mu dala koy def waaye ñi mu ànd kenn bugg ci loolu Zarko ñi mu àndal li muy def kenn bugg ci loolu waaye Diène concentré wu na rek Diène am na ñaari loxo ci ngemb Zarko am na ñaari loxo ci ngemb Zarko fa mu bëgg a jàpp dafa sooy Diène nangu loolu bañ na ñoom ñaar ku ne am nga loxo ci ngemb caxabal zongole Zarko ngi foowee bëre de loo ci mën a dégg mooy Zarko ngi foowee bëre bi est-ce que Zarko war naa bëree léegi Diène daan na ko Zarko daan na Zarko daan na jënd ko doo tànk. ETDR. établissement Touba Darou Rahman d'entreprise entreprise bu mag bu BTP travaux de bâtiment génie civil manam le lu jëm ci wàllum tabax kër réhabilité wala réfectionné dañu ciy taxaw établissement Touba Darou Rahman Soula la neige mën nañ laa jox kaya gros œuvre ak second œuvre gros œuvre mooy li fondation élevée, Tabak, houle, ak raax ci second œuvre bi nag ci ngeen di électricité ak plomberie ETDR am nañu ay boutique yoo